Thank you. Sayyidina وتاره بفضل المنير ba leen ko na naa dañuy daal di yëccee ndax ñu ngi commencé am lu mel ni jafe-jafe temps ndax euh, ñaan bu nangu rek la lu si Tuubaa nangu nii rek la mën a mel faaw mu faaw mu mel nii ku ci nekk da ciy bëgg wane si jëf wane ci sa yéene ngir jëm ni Seexul Xadiim lii kawe na suñu njort lool xamuñu woon ni dina dina surtout waa nu mu la ci léegi pour ñu gën a wéyal programme kuréel fédération nationale centre bi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy jàng ndax dafa am ay euh, kuréel Touba Tafar bi moo waroon a jël waaye euh, ñoom dañ di suñuy gan ci Tafar bi dafa bokk ci ñun moo tax dañuy teral suñuy gan ñu bëgg a yéegal kuréel national centre nu jàng xam naa. dinañ xool temps bi ni muy ni muy nar ndax bu kuréel santé bi jàngee euh, après dina am leneen lu war a bu jàpp allah xam naa pour ñu gën a wéyal ñu gën a gaaw ndax comme temps bi dañoo gën a kii kuréel santé bi bisimilah ñu barkeelu te ñu wéyal liggéey bi. leen di fàttali it ni ku ci nekk bëgg a wane sa yéene ci liggéey bi ku ci nekk ci bëgg a euh, bëgg a feeñ bu baax waaye ñaar ñaar bu nangu rek. ndax buñ sañoon tey kuréel yëpp ci nekk jàng ba ba ba ba féex waaye yàlla ñu xasida suñ tubaay gën a singil gën ñoo boole ndax lii lu jafe la booy xool saal bi fi mag ci ndaw ñi xanaa amul amul amul ñeenti fi kaay